la dame mhm. la dame était là mhm. ñëw na fi fekk ñu ñu taxaw mhm. mu laajte ñi nga xamante ne ñoo bokk ak xale bi ñun ñoo bokk xale bi depuis ce matin ñu ngi fi fii kenn ku si ne da nga am sa liggéey am sa métier yooyu def ñoom ñoo choisir nekk ay sapeur pompier en danger dañu war a sauver nit ñi bu lakk amee dañ ko war a fay bu lab amee dañu war a indi seen matuwaay yu mat mais mënu ma concevoir dëkk bi am ay xale yu lab nekk ci dëkk bi lab si géej bi ñu indi fi ñaari nit pour ñu pour ñu génne leen mhm. ñaari dañoo mën a a seet ay nit ci biir géej gi mhm. loolu c'est impossible non seulement kenn ku ci ne côte à taxaw parce que kenn du dem bàyyi sa morom mhm. na ko dem bàyyi sa morom bu keneen ki labee kenn du la dimbali kon dofuñu xam nañ li ñuy def fekk naa leen fii nag ne leen ndax di continuer seen liggéey waaw wala déet ñu neñu seen dernier moom mu revenir seen commandant commandant bi moo ne ñoo ngi dem ñu ngi fiy ñëwaat jusqu'à présent gisuñu ban heure lañ fi jógee ñoom ay 14 heures et quelques yooyu lañ fi jógee ñoom ba léegi jusqu'à présent ñëwuñu fi 8 fi xale nekk 9 heures et quelques lañ mhm. mhm. lap ñu woo leen ñu toog ba 11 heures ñu fiy doog a ñëw mhm. police point yooyu tamit nekkoon na fi ñoom def nañ seen constat yóbbu premier mort bi moom lañu yóbbu pare nañ ci gisaatuñ leen mais ban Sénégal lañ nekk euh, dañuy nekk ay nit ni ñu jël ay immeuble tabax ko nii mu géej gi ñu sacrifier doomu jàmbur nii si zéro pour lan te en plus xale yaa ngi kon di di sangu gis nga lii déjà lii fii c'est interdit mhm. bi de bi amee lañ jël seen drapeau bu rouge samp ko fii c'est pas normal mhm. du dëgg du yoon fii dañ ko war a interdit xale yëpp mhm. ndax xale xamul dara lu mu bëgg la xam lii du dëgg du yoon d'accord waaw ah, en tant que yaay noo gisee mbir mi waaw lu doom la ci man doom la ci man Serigne Saliou ñu ñaan yàlla yàlla ko yàlla nit defe naa comme li Serigne wax rek dafa ñaaw euh, nekk ci dëkk bu noyade amee autorités yi ñoo fi waroon teew sànq il a fallu que ñuy woote de gauche à par rapport ak sunu ay connaissance mais sama benn xarit dafa dem ba déplacé wu toog ak commandant pour mën ma woo mu toog ak moom ma wax lu fi xew mais moom woote na au niveau euh, du sapeur ñoo ñu ne ko carrément jot nañ information ba jot nañ fi ñoo mhm. waaye li tax mënuñoo ñëw nee na moom loolu da koo jaaxal. Mhm. ça veut dire que ñoom dañu toog rek seen coin de tele sorte que dañu xaar peut-être benn kilifa gu mag ku leen woo. Mhm. bu ñu mën a déplacé wu. Mhm. te comme li sëriñ wax rek ay xale yu sangu mu nekk plage interdite tey ñii ñëpp nii nekk fi di sangu. tey am na loo xam ne boo ko gisee nga dégg noyaat au lieu que ñu taxaw fi sécuriser plage bi defuñu ko. tey ci suba ñaari moor la ñu am nii nii. te mais xool xale yi. benn lañ gis benn lañ gis pour le moment suñu jarbaat ba tey génnagul. Mhm. donc ménagères yi dugg nañu xool nañ gisuñu. Mhm. ban moon lañ ne bu doon Europe la hélico yi sax dañ lay tiim. dem xooli wër ba gis corps bi ñu génnee la. Mhm. amaana sax boo labee balaa ngay dee di nga gis ku la secourir. mais fii amu sax ku ñëw di la mën a defal. loolu dafa ñaaw. parce que à chaque fois les mêmes problèmes se répètent. Mhm. il faut que ça cesse. Mhm. ñu bàyyi politique bi politique bi yii moo gën a importance. Mhm. ñu sécuriser xale yi. sécuriser dëkk bi moo ëpp importance bu tayee ñu ne agression bu subay ñu ne noyade les problèmes se répètent. nañ waxante dëgg. am na loo xam ne Sénégal bu bëggee mu développé war na mën a dépasser étape bii. nañ waxante dëgg. d'accord c'est un de cœur alors am na message boo bëgg a lancer yaay itam que ñu ngi ci vacances. te xale yu bëri dañuy profité ci euh, géej gi comme ñu ko gisee ni ci plage bi. waaw comme ni niñ ko gisee ci plage yi tey suñu jarbaat bi moom dafa yaru de telle sorte que du dem fenn. Mhm. gars yi sax ñu ngi ko doon wax sànq ba léegi. Mhm. xëy na ndogal tey moo ñëw rek mu demee nii. Mhm. mais ñu surveiller waat xale yi bu baax. xam aussi bu ñuy dem plage wala piscine sax léegi dañ ciy lab. te dégg nañ ci noyade yu bari. donc il faut une tell une une une belle surveillance boo xam ne war nañ ko mën a bàyyi xale yi ñu xool ko xëy na yàlla mooy ñëw rek. des fois doo comprendre. Mhm. mais nañu surveiller xale yi mais tamit autorité yi. sapeur waroon na fi nekk ba léegi ànd ak famille bi sax au moins. waaye ñoom bañ demee ñëwaatuñu ba léegi. Mhm. tey ñun ñoo fi nekk ñun ñii entre famille. ñooy woote de gauche à droite suñu ay connaissance pour woote pour laaj ba xam dinañ ñëw wala duñu ñëw. Mhm. à cette heure fan la sapeur di ñëw di dugg ci géej gi di xool ko heure bi lëndëm na lan la ñu waxoon dañuy bàyyi ba ba mu ba mu dal ñu doog ñëw. ñu ñëwuñu. ñun ñooy euh, ñu naan. maître nageurs yi dugg leen génn leen ñoom ñuy dugg aussi di génn sànq ba léegi di di di di di di remplaçante mm. neexul quoi nañ ça fait mal au cœur mhm. neexul mhm. boo ñàkkee moom ñàkk nga gaa moom mais yii dafa war a dakk mhm. parce que chaque jour ça se répète ñun ay sénégalais la ñu am fii la mais am na loo xam ne bu ñu dalee du ñu dalaat du ñu dalaat bu yàggee ñi nekk ci kaw ñoo dimbaliwul ñu nekk ci suuf dañu waxante dëgg ça fait trop mal vous Malick euh, tous les moyens sont bons pour passer l'information naam jaar ngeen fu nekk mm. euh, pour euh, rek ñu dégg leen pour xam itam seen cri de cœur bi mm. seen jërbaat lab depuis huit heures xaw ma neuf heures rek léegi sapeur ñëw na waaye lam cee waroon a def dëgg-dëgg defu ko yéen a ngi toog ba tey di xaarandi. Euh, maa ngi leen di saar bu baax. jërëjëf. Euh, yaakaar naa ne man wax ci média sax naam ci laa ne. Mhm. mais bariwul li ma koy def. Mhm. mais damay demander chaque jour ñun ci ban senegal la ne. Mhm. bu nu waxee ñu ne presse bi wax nan wala presse bi ñuy nangam. man ci presse bi laa ne. te ñoom ñi may waxal xam nan ma bu baax. man la Malick. président des jeunes reporters. Mhm. xam nañu bu baax di commencé ci ministre de l' intérieur. Mhm. ministre de la communication ñoom ñëpp état bi ñoom ñëpp xam na mhm. mais lii ñu def teg teguñu ko fenn. que ça soit clair. te bu ñu yaakaaree ne rek amul mbokk parce que boo bu ñu yaakaaroon ne am na kenn ku leen mën a woo ku nekk ci kaw. ñoom ñëpp dañ fiy ñëw. chauffeur ban droit la am ci ñëw repêché kenn ki après mu abandonné. ay pour ay recherche mais fi nga repêché repêché kenn ki boo balisé woon di nga gis ki ci des. tout à fait. Mhm. bu nu yaakaar ne Sénégal ay dof la parce que man bëgg jël suñu dëkk bi daf ko ci lan Sonko nangam dafa doy. Mhm. woo naa leen léegi woote naa fu ne. Mhm. su ma jógee fii police point e laa jëm. commissaire bi dinaa wax ak moom parce que de un. naka nga mën a xëyee depuis ce matin nga am deux morts. supposons. Mhm. kenn ki gis nga ko gisoo keneen ki. Mhm. après booy nekkaat ci géej gi mel ni dara xew. beneen bi ci des est-ce que géej gi ay xeer kese fi ne. li ko wër yëpp ay tabax la. Mhm. léegi dëkk bi boo amul branlon. boo deewee yaag mbóot yaag mboot ak kañay yéen a yam. pour quelle raison. sapeur lu lan la. te du ñu wuyu lan mooy seen devise. lan mooy seen devise na sauver ou périr parce que loolu la ou périr sauver mhm. ou bàyyi nañ man maa wax loolu ñoom mhm. ñi may waxal euh, xam nañ alors la ñuy wax quoi ñaari nit ñu indi ñaari élément su ma même bu dee benn nit mhm. ñaari élément yaa ngi imaginer deux éléments euh, ñaari élément amoo kano amoo kano bu daw bu daw ci géej chapeau dafa waroon am kano bu daw ci géej bu ñu demee ba gisuñu ana marine nationale non bu ñu yaakaar nit ñi ay dof quoi. Mm-hmm. ana marine nationale. Mm-hmm. marine nationale mais fii euh, boo demee Soumbédioune ñoo nga fa am nañ fa base. Mm-hmm. et c'est pas loin d'ici. non wëndeelu la. information ñoom ñëpp ko jot. ñoom ñëpp jot nañ ko. ministre de l'intérieur jotuma ko. envoyé naa ko message mu ngi Touba. xaw ma ndax ki ma ko yóbbante jot na ci wala jotu ci. moom xam na ma bu baax xamante nañ man ak moom. te ñoom xam nañ ne man du ma wax ci caaxaan. dugguma ci ay détails mhm. mais lii il faut mu dañ ren ñaata cas de noyade lan lan am. bari na. Mhm. ñaata cas de noyade. Mhm. am na kuñ kuñ ci woo léegi mu naan non instant bi ñëwoon nañ fa léegi lañ fa jóge ay 18 heures c' est pas vrai. c' est pas vrai man maa ko wax. il faut que nag ñi ci war a jot jot nañ ci taxaw ñu génneew ñun gëm nañ yàlla. ñun gëm na ne lu ñëw dogal la. Mhm. dañ koy nangu. Mhm. loolu déranger wu boo ñëwee famille bi nga ne gisoo ci kenn ku kanamam triste wala déedéet. nun mhm. ay murit lañ te ay cantaakoon lañ lu ñëw suñu boroom la. lu mënti ñëw ci àdduna suñu borom la. mais dafa am lu gën a rafet taxaw. dañ leen fee teg ñoom pour loolu. police dañ ko fee teg pour mu artu. mais bu police ñëwee def benn benn petit rapport am non ñun am na ay contact police. te li ma mën a waat mooy commissaire yëgu ko te bu ma jógee fii ci commissaire laa jëm d'accord ñoom waroon na noo mën a taxaw fii assister famille bi mhm. waroon na fee taxaw assister famille mhm. mais zéro mhm. loolu la amoon ci lu ma ci wax d'accord jërëjëf euh, akan ah, jógee ku sori si ñëw suñ suñu naqar bi ñu am te ka ko bokk ak yéen euh, daal ñun ku mel ni man sama xol dafa xaw tuuti li tax mu tooy mooy. Mm-hmm. ñun depuis suba te ñu ngi fi. Mm-hmm. Euh, li ñu dal dal ñu. Mm-hmm. kon tey bu ñu sañoon ñi nga xam ne dañoo war ñoo war ñoo wallu war a jàppale. waaye boo yaakaaree pour mu ñëw wallu la te jàppalewu la sa xol day gën a tooy. tout à fait. ñu xamal euh, ñi nga xamante ni dañoo fi ñëwoon tey jii ci sapeurs yi. di police. si li nga xamante ne moom moo ñu dal tey am ñoo xam béy nañ si seen waar am ñoo xam béy nañ si seen waar. Mm-hmm. te loolu rafetul. Mm-hmm. nit bu fekkente ne da ngaa nekk si béréb. Mm-hmm. dafa liggéey te liggéey bi tax laa jóg da nga koy matal. boo ko matalee loo ci góobee gar ko. waaye def lii bàyyi la si des amul njëriñ. amul njëriñ. bu buñ ko matalul na ñu mën a taxaw sax accompagner famille ci li xam ne moom lañu moo foofu laa jëm foofu laa jëm mhm. Mhm. parce que mbir mu ne mhm. li ko amal solo mooy nit ki am na naqar nga ñëw bokk kom moom ba mu jeex foo ko am solo si mbir moo gis asuma koo xamante ni dafa ñëw te xale bi nga xamante ni mooy suñu doom tey ñëw fii si géej gi moom sangu xam naa ni indiwu ko woon dafa na entraîné fax yàlla ne tey ji entraînement bi mu def su paree dina dugg si biir géej gi sangu mhm. fax yàlla moom ko fi mu lab mhm. noonu demee de mais kii ñemewul loo xamante ne tey jii sax moo gën a néew si dugg si géej mhm. ñemewu ko kon tey bu ñëwee fii dañuy gàddu li tey ndogal la sunu borom moo ko bëggee nii waaw xam na sunu borom moo ko bëggee nii waaye ñi ñëw tey jii si géej gi muy ñoo xam dañoo war a ko sukkariir si ñu si biir géej gi jàpp jàpp jàppale wuñ ñu def la wuñ ñoo xamante ni war na su ba tey vraiment a d'accord jërëjëf rafetul jërëjëf ñu ngi nag ñoo ngi ñaan daal ki nga xamante mu ngi biir ndox mi mhm. yàlla na ko suñu borom niital loolu daal moo jar ñaan yàlla nañ ko suñu borom niital te xare ko àjjana mhm, waaw mhm, xare ko àjjana Euh, man maa ngi tudd Algor Kassé. Algor Kassé waaw kii laab nu mu tudd moom. Serigne Saliou Mbacke. ah Serigne Saliou waaw Serigne Saliou waaw. Eh mhm. Algor maa ngi dëkk euh, HLM. Mhm. bon sama kër mu Kër Massar. Mhm. bon xale bi mu ngi dëkk euh, Liberté 5. Liberté 5 waaw Liberté 5 jërëjëf. ok jërëjëf kontaan nañu jërëjëf. li nag fii la xewee ci géej gi Serigne Saliou moom lab na mais keneen ki moom mujj na ñàkk bakkanam voilà ñu ngi ñaan rek yàlla suñu borom teeru ko. Euh, ba mu génn ci jàmm ak salaam moom Serigne Saliou ba mën a dem sax Touba ci màggal gi voilà ah d'accord ñu ñu ñu tëj rek mmh. ñëpp jërëjëf. Mmh. di sant yàlla bu baax nag. Mmh. di nangu dogal. di sant Serigne Saliou bu wér. jërëjëf ndax li fi xew. dogal la. ki si géej gi. suñu jatbaat la. yaayam sama rakk la. mu ngi tudd Serigne Saliou Mbacke Ndiaye. dama xamul nag ban dëkk lañ nekk. Mhm. parce que bu nee xale lab na. Mhm. muy géej Mermoz. Mhm. sapeur yi ñëw ñaari sapeur ñoo fi ñëw. dugg bi duggee benn géej benn booy bi ñu ngi ko foree fële. Mohamed. dëkkandoo la. yal na ko yàlla yërëm. amiin yaa rabbi sëriñ mii nag. di sëriñ Saliou moom la kenn gisul. sapeur yi seet nañ. benn deux heures temps dem. nee na visiteurs yi ñëw fekk mm-hmm. géej gi daal mm-hmm. boobu léegi ñu ngi fi yendu mm-hmm. ñun ñëpp ñu ngi fi yendu ba yen ngeen ñëw gis ñu sapeur police jaaraatu fi benn benn autorité newu fi te ñu xam ne nag nit moo wàññeeku te ki wàññeeku nii gisuñu ko xamuñ ci lu mu nekk di ñaan nag gannaaw dëkk bi am na loi ak autorité yi dañ leen fi teg ñu dimbali population bi ñu envoyé ay secours ñu ñëw génn suñu nit ñu xam ne nit kat mi ngi nii waaye lii depuis ce benn autorité yëngatuwul. Mhm. ngoon gi gis nga xale yi fii lañ yendu ban dëkk lañ nekk. léegi dañ koy wax ni. Mhm. bàyyi ëllëg mu daal keneen ëllëg mu daal keneen. Mhm. lii dafa war a arrêté. ñoo xam ne dëkk bi dëkk teraanga la. mais autorité yi. du ñu ay autorité teraanga man maa ko wax. lii laa amoon lu may wax. jërëjëf jërëjëf ok.